toujours ci manifestation ak violence politique bi nga xamante ne dañ leen ci woo euh, avant présidentielle bi dañ doon wax nit ñi déglu leen discours yi bàyyi leen xel ci programme yi balaa ngeen di voter euh, te loolu tey li koy firndeel bokk na ci ñu naan projet am na wala amul ñu ngi koy bind pare na ñoo pare wu ñoo coow li mu ngi ne kur ba léegi kenn amagul déggoo ci mbir bu ni mel léegi nag Euh, daf may indiwaat ci fàttaliku keneen comme ni ko Mourtala waxee sànq muy le professeur Malick Ndiaye mooy bi mu bindee. def alerte ne où va la République. tey ji instant yooyu euh, moom la ñuy ñëwaat ndax pourquoi où va la République dañu jaayoon un projet boo xam ne anti système moo ko incarné ñu wax ñu transformation systémique askan wi déggee ci ne li fi woon day ni ñii buñ ñëwee dafay am renversement situation lépp luñ fi doon taxawal ci nguuru yàgg ngeen dégg ba tey Pastef ñi ko jiite responsable yi naan concept nguuru ñoom duñ ko accepté parce que loolu amul nguuru loolu day indi di noot ak di tegu ci kaw askan. jouissance jouissance merci beaucoup. waa léegi depuis bi 2 avril jàll jàllee ba léegi ba ñu xam ne nguur gi dem na bii moo fi toog nguuru bi est-ce que changement am na dégg ngeen fi coowal. nañ delloo oto yi amoon présidence ak ñi nga xam ne dañu amoon post ci état yor ay oto nañ ko delloo te bu ñu leen ko delloo dellooyee wa déggoo ne dañ koy def vente aux enchères dañ koy redistribuer waat ci ñi nga xamante ne ñoo fi toog kon nguuru am na foofu ci oto yi dégg nga premier ministre ak euh, gouvernement ci conseil des ministre ñu ne patrimoine bâti de l'état bi dañ ci bëgg teg loxo parce que am na lu ci rëcc dañu bëgg def restitution bi te bu ñu defee restitution bi déggu leen ci jaay li ngeen ci dégg xëy na wala liñ ciy xaar mooy ñi ñu fal ñu jox leen patrimoine bâti boobu kon loolu nguuru ci lay bokk et pourtant réew yu mel ni Allemagne Angela Merkel jiite na ko lopp fukki at ak juróom apartement bi mu dëkkoon mosu fa toxu donc moom xaarul nguur di ko casé et jàppoon naa ne en 2024 ci yooyu la ñuy toll am ay njiit yoo xam ne bu ñu ñëwee du ñu laal oto nguur parce que am nañ ko seen bopp du ñu laaj dëkkuwaay ci nguur parce que amal nañ ko seen bopp ñoom servir moo leen war a indi servir la peuple du loolu lañ bëggoon donc servir le peuple amagul jouissance moo am ak li nga xamante ne mooy fexe ba euh, ñu seddoo y a rien de nouveau sous le soleil léegi séddoo boobu noonu nag dafa am loo xam ne daf ci am lu ko caractériser mooy l'absence des femmes ñu ngi koy wax démb y a quatre-vingt-un nominations seulement sept femmes oui, oui, oui. et pourtant organisation féminine yi kenn du wax donc le statut de la femme et réduit au néant kon Sénégal jigéen leadership féminin dina fi dee. te moo di résultat yi rek wane na ko. ñoo gën a xarañ ñooy jël pied ñooy jiitu. <laughs> rapport de contrôle yi accord de contrôle yi fi jot am. néew na nga jàpp néew na nga gis jigéen buñ ci kii ni épinglé. donc gestion des femmes des finances. yaakaar naa ne amul lenn lu ñu leen ci reproché et pourtant depuis le 2 avril nomination yi y a moins de femmes et je pense que loolu aussi c'est déplorable mhm. ndax aussi jigéen ñi li ñu xeex ak apport bi ñu def ci li nga xamante ne moo am ci réew mi joxe naa sax exemple ne ñu bari bi ñu leen jàppee plus de mille prisonniers loolu moom c'est pour le compte du gouvernement de Omar <laughs> mille prisonniers politiques yi fi amul mais jigéen ñi ñoo doon yóbbu añ non seulement ñoo doon yóbbu añ ñoo doon toppatoo mais ñoo yoroon kër gi di garder xale yi donc bu bu kër yu bëri tasul damaa jàpp ne jigéen yu bëri ah ñoo fa toog hmm. kon jigéen ñi seen apport sax si xeex bi na serait-ce que pour ça waroon nañ leen ko sargalee et je pense que loolu noonu war nañ cee gën a bàyyi xel hmm. léegi nag euh, ce qui est positif nag wax dëgg yàlla mooy déggaguñ fi kuñ fi nommé mu ne suñu quatre premières dames parce que quatre premières dames lañ am Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy sonk donc suñu quatre premières dames yi amagul kenn ku kuñ fi fal mun a jëf parce que damaa jege première dame au moins loolu c'est positif te daan nañ dégg nit ñu fal ko mu ne ah maa ngi koy gërëmee première dame la woon ah benn yoon kese la woon muy euh, l'ancien ministre des sports Mbagnick Euh, euh, xam nga séeréer la bu déggul olof. léegi lu ma bëggoon wax en wolof peut-être il a déplacé le mot. kese non mais on a séeréer bu déggul olof la. on a doon tuumaal ne nomination yu ci bëri. amoon na tata Maki tata Maki mooy ne ci tata Marème mooy ne ca gannaaw de. non on a une euh, une comme Ndeye Saly Diop Dieng ñëpp nee nañu xarit. non waxin la rek kenn musul dégg. baax na kon baax na ah. ayca continue. waaw. Mhm. le directeur du nee nañu Absa moo Absa Faye moo tax ñu nommé ko. la nekkoon trois mois avant. la la démissionné. Ndéné Mbodj. Ndéné Mbodj la ca de l'APR kon baax na trois a avant la nekkoon APR. kon loolu moom bu fekkee ne li may wax amul. loolu je le connais très bien il était de l'APR. très bien loolu léegi nag comme xaw kañ la dugg Pastef ah, mais man affaire la xamee woon. Ah bon ñu bàyyi Ndeye Fatou terminer loolu exception la mais démb conseil des ministres. communiqué wax nañ ci ne euh, premier ministre soññ na gouvernement bi ak ay ministres ñu defar ay textes pour waajal euh, projet de loi ci lanceur d' alerte ak. Euh, nan la ñuy fexee ba jot ci ay poste haute fonction yoo xam ne ci institution publique et parapublique la ah c'est c'est positif léegi ñu xaar foofu ne nit ñi dinañ fa dugg ndax compétence doonu <laughs> doonati euh, li nga xam ne mooy critère de proche wala critère de d'amical boo xamante ne merci beaucoup alors li ñu des ci waxtu bariwul dañuy dem maanaam directement ci question bi euh, da baax sur la question des inondations Touba actuellement patauge à un mois du Magal gis nañu image yi déjà moom la ñu njëkkee maa ngi doon rappeler sax ne dinañ ci ñëw très rapidement euh, lan moo war a doon solution yi surtout ak euh, réaction wu régime actuel bon réaction <clears throat> mooy mooy bu ñu commencé am jox naa la euh, exemple keroog Cheikh Tidiane Dieye bu doon dem fenn yëg dafa amoon ay inondation Kaolack et automatiquement il a rebroussé chemin parce que loolu leen président laaj loolu leen premier ministre laaj c'est nekk au chevet des population mën a taxaw dund ak ñoom maintenant mbirum inondation du loo xam ne dan nga koy résoudre en un mois deux mois. loolu jarul nekk euh, waaw nekkul je veux dire c'est problème bu fi yàgg la. ça fait des dizaines d'années les gens. mais la war a doon ci régime bi. mais bien ñu fii lépp challenge la. gis nga bu ñu réussir ba ba Touba moom Moutala mi fa la dëkk bu ñu réussir ba jafe-jafe assainissement ak ndox moom jóge fa. Mhm. ah loolu moom. Euh, dara moom xam naa ko on va applaudir mais. Euh, ça doit être. benn challenge ci dara moom xam naa ko. le président de la République et son premier ministre. am na fu kawe fu ñu teg Touba. ak mhm. fu ñu teg en tout cas foyer religieux yëpp. pour une simple raison fu ay millions de Sénégalais di daje. yow nga jiite réew moom da nga war a def tout ba ñooñu bu ñu fa eggee. ñu mën a nekk dans des d'excellentes conditions. gëm naa ne c'est des problèmes yoo xam ne san ne peut se régler en un mois en deux mois instant ay action ngay jël peut-être pour atténuer pour wàññi ndox bi. mais je suis sûr qu'il y un plan qui sera mis en œuvre et qui sera bien exécuté et il n'y aura pas de détournement de fonds ba problème inondation yi au Sénégal. Ah, mu nekk ah, mais mais ñu la. Ah, ñu ne la ñu mais écoute il y a deux choses. xam quand on vote non si li ma wax je le réitère. dama ne dama ne bu ñu jëlee ay milliards. ne dañuy def ay plan décennal pour régler mbir. ay milliards lañ dugal ci ndox mi soit soit xaalis boobu. waaw soit xaalis boobu dañ ko jël détourné def ko feneen soit niñ ko defee baaxul donc moo tax ma ne ñun am nañ yaqin am nañ xam nga fa laay terminer et c'est très important et c'est par quoi doyen bi daf ko waxoon gis nga doyen le Sénégal n'a jamais manqué de compétence fii ay boroom xam-xam dañ fee yàgg am dëgg la xam nga lan moo yàggoon nekk suñu problème mooy jub mooy lu ñëpp bokk ñu bañ ko détourner yàlla nag def ñoo suturaal le duo qu'on boo loon xool lan mooy seen carte maanaam boo doon jël benn ci ñoom qualité mooy le rapport sain qu'ils ont avec l'argent moo tax nañu sant yàlla ba période bii ñu gis pétrole gis ay ressources yàlla may ñu ay njiit yoo xam ne ils ont un rapport sain avec l'argent parce que loolu moo nekkoon problème Sénégal moo tax ce slogan dont tu parles là jub jubanti jubal dafa am solo parce que tout commence par la tête